tax yëfu Thione Seck bu mooy ne bon bañ ko jàppee moom nee na ba mu demee gendarmerie bëggoon na woo avocat am mais dañu nangu téléphone am ne ko doo wax sa avocat bon avocat am tamit ba mu déggee loolu moom daa na dem pour waxtaan ak client am waaye dañ na ko doo wax ak Thione Seck bon ci la coon sec di wax wax wax wax wax problème bi euh même bu fekkee ne li ñuy tuumaal des sec ne mom moko def ne dañu fekk bu bari ci ci ndax le 27 mai bañu démé ci këram dañ ko laaj ndax xam nga malien ñu ne que mais pourtant ñaari waxtu fii rek mu ngi fi woon mu génn na sa kër léegi mu weddi loolu bañ ko waxee loolu nag ci lañ ko wax ne ñoom lan moo leen fi indi leen fi indi mooy ne kooku day def day defar xaalis bu bon kon nag il faut ñu xoolaat kër gi perquisitionné mooy maanaam il faut ñu xool ut ay firnde pour wane ne coon daf dafa doon def dafa doon liggéeyoo kooku wala liggéeyoo kooku ba ñu waxee loolu nag ci la coon sax daal di jug am benn saak bu nekkoon ci kër gi mu dem daal di ci toog ba mu ci toogee nag mu jaaxal enquêteurs yi maanaam mooy setkat yi gendarmerie ñu ne ko waaye jógal jugal ci saak bi mais bëgguloon jóg ba ñu jógee nag ci la ñu gis xaalis bi xaalis bu bon bi ci la ci euh, bi ci nekk ci lañ ko yóbbu mais question yi avocation Thione Seck laaj mooy ni est-ce que gendarme yi ba ñuy ñëw est-ce que mën nañu def loolu est-ce que yoon may na leen ñu ñëw rek dugg kër jàmbur même bu fekkee ne dafay def dafay def lu bon est-ce que amoon nañu est-ce que juge àttekat bu mag bi joxoon na leen euh, ndigal ne leen waaw dem leen ak këyit yoo xam ne dinañ dem wan ko Thione ne ko yoon moo ñu indi fii il faut ñu xool sa sa kër ndax am na ay ay xaalis bu bon ak walla xaalis bu bon. loolu lu jar a leeral ndax bu fekkee ne loolu amul vraiment loolooy Thione Seck ay ay ay droit am respecté wuñ ko maanaam citoyen boo gis waruñu la fekk sa kër rek daa la ñëw rek ne dañuy dañuy dañuy xool sa kër ndax loolu buñ ko bu buñ ko mayoon euh, police walla gendarme nit ñu bari mën nañ leen taqal waaw mën nañ la bëgg taqal daal di indi drogue sa kër wala ñu indi fa xaalis bu bon ne la ne la yaak fi yaak moom daal di la yóbbu mais man waxuma ne loolu moo am de waxuma ne moo loolu moo am mais dama ne est-ce que coon wane nañ ko kayit ay kayit yu leer wane ne ko yoon moo ñu indi ba loolu weesoo est-ce que wax nañ ko aussi ne ko wax ko ay droit am bañ ko yóbbu ci police ba ne ko bu la neexee bul wax wala balaa ngay wax il faut que sa avocat toog ah man de dama yaakaar ne loolu loi universal la ndax min Amérique bii ma nekk police bu la jàppee balaa ñuy def dara dañ lay njëkk a wax dañ lay njëkk a wax yow lan mooy li nga xam ne yaa ko moom li nga xam ne yoon may la ko may na la ko dañ la naan bu la neexee bul wax dara am nga droit nopi waaye bo waxe lepp lo wax yoon mën na ko jël buñ lay atté loolu nga wax mu dal sa kaw kon nak bala ngay wax est-ce que bëgg nga sa avocat ndax ki ki ki lay euh, jappalé sa avocat bëgg nga mu ñëw wala mu mu baña ñëw bo né bëgguma sama avocat bëgguma wax duñ la interroger dañ lay jël rek yobula wa mais est-ce que chon sec est-ce que defal defal nañ ko lool